leen wax ne rek ñu ngi en direct ci Sénégal set vous pouvez participer à l'émission en attendant mm. may xaar suma waa ji mu agsi ah donc ma ma ma jéem a rek mm. ubbil leen antenne bi ngeen réagir ci nu ngeen ko bëggee rek ah ku nekk joxe ci xalaatam yéen waa Maroc ah mën ngeen a dugg ah, en direct ci émission bi ah, su ngeen defee plus 221 77 717 37 87 ngeen def ni comme suma yaay ji ma ma déggante ak Serigne moodu astu Mbacké comme que en direct la ci Sénégal 7 donc Serigne Modou asalaamaaleykum. aleykum salaam wa yaa ngi en direct ci Sénégal 7. Mhm. donc ñu ngi nekkoon di waxtaanee visitu le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ca ca France ah waaye tamit euh, kii di soxna may Maïmouna Ndour Faye euh, ay kàddu yi mu yëkkati donc entre autres ak la xew ca camp euh, donc ñu bàyyi la rek nga àddu ci bu ci nekk boo ci bëggee àddu rek. Ah, waaw xam naa man déggumay français. waaw. waaye man loolu demam googu man tuddee wu ma ko visite. ah noo ko tuddee. waaw ko visite mooy. Mhm. visite day nekk lu officiel. waaw. ñu ne kii bu jógee en tant que président de la république. Mhm. président de la république Emmanuel Macron moom moo ko invité pour mu ñëw France. Mhm. nangam ak nangam ak nangam moo nekk li moom muy jóg dem France. waaye au ñoom ki ko invité sax du Emmanuel Macron du France du état France. ay nawlem africain. yi mu seqal continent. Mhm. seqal ñoom dem la ñu jëm dikkalante. Mhm. ñooñu ñoo ko invité comme ni mu leen di invité parce que bi muy def euh, prestation de serment bi yàggul. Mhm. dafa leen a invité. ñoom ñu ñëw. aussi itam daf leen a daf leen a de ne dama leen a bëgg a seet si ay ay tukki. wala Guinée. Euh, Bissau Conakry ak ak ñu bari ci Afrique ci Afrique bi. le fait que ñooñu ñëpp accordé nañ ko ko. kon mm-hmm. ñooñu ay nawle lañ yoo xam ni. Mm-hmm. ni waykat wolof bi naan ki lay lebal boo ko dul may sax dafay ko mu doy. dëgg la lebon fayoo ko mayoo ko si lëf di may ki ko mooy. Mm-hmm. le fait que moom euh, accordé nañ ko ay waja ñu dëgmal wala bu soobee yàlla dana leen soxlawaat ngir ñu fekk si ko ci ay programme yu muy am. kon day jaadu rafet ñoom bu ñu amee seen programme ah ñu woo programme bi nag mooy ñoom. Mhm. dañoo organiser lu jëm ci wàllum ñàkk ak yu ci aju yu mel noonu. Mhm. ñoom réew yooyu nga xam ne réew Afrique yi ndaje ma ñu koy amalee France. Mhm. waxtaan woo France bokk ci ñoom africain yooyu ñoom ñu invité ko ci. mu daal mu dem ja. léegi li nga xam ne du visite du visite France. ci biir euh, journaliste yi ak li ñuy bind ak li ñuy wax dañoo wax ne am na benn entretien bu mu accordé Emmanuel Macron. du yéen a dégg loolu. waaw ñu ngi dégg waaw. voilà léegi euh, euh, jibi tey bu fekkoon na yow tey man dama dama damaa jóg ngir seet si la uniquement. Mhm. naka la ñuy waxee ne léegi man accordé naa ma maanaam jibi benn entretien. laaj la de laaj bu samp la de. laaj la loolu loolu noonu mën a nekkee. loolu kay li ñu mhm. wax mooy accordé naa jibi benn audience loolu ngay wax wala benn tukki wala benn visite. Mhm, léegi ngaa gis uni ca Amérique. ñuy def seen conférence yi Macky Sall dem fa bu fa demee daje fa ak Hassan Rouhani. Eh, président Iran mu accordé ko benn entretien. ba daje fa ak président Dilma Rousseff ancien ancien président bu Brésil mu accordé ko benn euh, benn entretien. dix hmm. minutes quinze minutes vingt minutes. Hmm. fekk ñoom dañoo am leneen lu leen dajaloon muy au niveau moo leen dajale waxtaan wi ñuy amal ak nangam ak nangam ñoom ñu profité wala tant que daje nañ fa ñu gaaw waxtaanee dara. Hmm. le fait que Macron nag yàgg naa soxla euh, gisee ak président Diomaye Faye te naa ne Diomaye effectivement dafa war a dem dafa war a dem parce que ñu lalaay mën a wax bu ñu doon tàggoo itam bala ñoo tàggoo danañ waxtaan mhm. waaw ndax dañu wax a séq ba pare def li ñu séqee daa sore mhm. ndax réew moo xam ne booy téléphoné nii français yi yombal débasi pour nga téléphoné kooku balaa ngeen seq tàggoo di ngeen waxtaan mhm. koo xam boo xëyee di sangu wala nga war a naan France moo lay xeetal ndox mi nga sangu naan kooku faaw ngeen waxtaan balaa ngeen a tàggoo koo xam ne tey boo xëyee war a jaar Eiffage war a fay ji autoroute yi war a dem faaw nga France mooy ubbi gise yi nga mën a jàll kooku mënoo leen tàggoo du ngeen waxtaan boole nag allo. waaw maa ngi lay dégg sëñ bi. waaw boole nag sa milliards yu bare bëri yoo xam ne jël na ko ci or jël ko ci gaz jël ko ci phosphate jël ko ci boo doon lim fi ngay fanaan jël sa suuf jël sa yi nangam ak nangam ñooñu su gënoon tàggoo ñu waxtaan waaye loolu lépp am lu ko gën a profond. Mhm. mooy yow li ëpp ci sa budget wala ci sa xaalis marchandise boo jaay parce que cinquante bu doon cinquante millions vingt cinq millions day des fii ji koo xam ne xaalis bi ngay jëfandikoo muy kayit sax France moom moo koy defar pour livrer la ko kooku ba nga doon tàggoo di waxtaan kon mm-hmm. waxtaan suñu digg France mënul ñàkk mënul ñàkk quoi waxtaan woowu nag pour moi le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye dafa nu ko ko bëggee Macron moom en tant que France damay faral di wax ne France ba juddu démb ak bi maa gàttay mm-hmm. France bi nekk parti UMP di opposé ak France bi nekk ci socialiste ak français yëpp ñoo bokk même benn vision benn programme benn objectif bu ñu am ci Afrique. Mhm. muy France ku ko yor ñoom da ko war a développé da nga ko war a gouverner normal te France ku ne xam na ne di ko di ko di ko di ko développé di ko gouverner ak di tax ñu mën di fay seen i di mën di fay seen i ñu ko waxee seen mhm. loolu faaw ci réew africain yi bu ngay sukkandiku pour def kon ban leader wala benn opposant moo dox bay ñëw damay jël France wala ñoom ñoo bokk même ni ñuy xoolee même africain yi ñoo bokk même ni ñuy xoolee président léegi nag dafa jàpp maanaam Macky Sall en tant que seen surga en tant ñu doon Macky Sall seen i surga beneen surga ñëw na te surga bi daa war a ñëw rendre compte wax ñu moom ba maanaam euh, fi mu jëlee Sénégal évaluer fi mu bëgg a jëmee Sénégal économie Sénégal fi mu toll français wax ko ko France lobby national lobby financière yi ko daan jàppale Sénégal mu koy jàppale et cetera ak li France am Sénégal li France bëgg Sénégal doxal lépp ñu mu nekk foo jëloon ñu jox la loolu la ñuy xaar ci Macron la ñuy xaar ci président Diomaye Faye ngir mu ñëw. d'accord président Diomaye Faye en tant que tel moom itam la la muy xaar te bëgg ko mooy am nawle boo xam ne ki koy seeti nawloo na ko res bëgg ko defar en tant que am nawle kenn ci ñoom ñaar bëgg fekk sa morom ci lu ci lu nii ma la wax. d'accord léegi nag problème posé wu. ban problème. problème bi posé wu mooy ñoom ñaar ñi ay waay lañ ci démb ba tey ci misaal muy Sénégal ak France. Mhm. dem nañ ba waaye gi na te war nañoo toog waxtaan te kii a recevoir kii pour waxtaan ak moom kii a demee pour waxtaan ji moom bëgg ñuy def léegi ni ñuy def neen rek la mooy ji bi man tey su ma doon sa waay ma mm-hmm. amal yow ak réeroo toggee añ sama kër gii nee na ñëwal añ doo ñëw mm-hmm. ah ma jaar ci Abdou Aziz togg añ yóbbu kër Abdou Aziz mm-hmm. comme maa yow ñoo bokk muy suñu waay waaw Abdou Aziz war la ji bi dama laa invité doo am lu dul ñëw kër Abdou fekk ma fa fekk fa sama añ ko tege d'accord comprendre point ba comprendre na le fait que nag fekk nga Abdou Aziz teg añ man añ bi man maa ko andi Abdou la waaye Abdou Aziz man maa la ñu préféré waxtaan naa dañu war a waxtaanee su boobaa yow la nga bëggoon en tant que sur xam da koy woo honoré ko yow Macron te bëggoo ko honoré parce que bu ko def dina gis mhm. jamono sax bëggu na moom dem nekk sur ko adduna di gis mhm. ah ñu faa profité ñoom ñaar ci ci wootam ñeneen wootam ñeneen mooy ñooñu ñoo woote fa ñuy woote France la ñu woowaale ko mu dem toog Macron profité war jëlaale ci benn dix minutes vingt minutes bu defee benn entretien loolu mën na nekk. d'accord. léegi nag. man euh, li ma ci gis si tukki bi. waaw tukki bi am na solo bu doon tukki bu officiel boo xam président bi day jugee ñu ne Macron lay seeti. Mhm. bu demee ne lii ak lii ak lii mooy point yu ñu war a waxtaanee nii ak fii lañ bëgg a jëm kooku am na am nu ma demee waaye tey jii Macron bi mu gisee jomaay bu dee yaa ngi lire a wax ci say plateau ji. maa ngi jégalu guddal bi. na amul solo. waaw dama koy wax ci plateau ne la man nit ki li muy wax chaque jour bu koy wax man bala maa jàpp li muy wax damay jàpp jëmmi kiy wax ak manière yi muy def buy wax. Mhm. ak xar kanamam ma koy liiree buy wax. ak maanaam euh, mouvement yi ñuy dégager ci seen biir rencontre. Mhm. rencontre ma ba ba xoolee Bassirou Diomaye Faye bi muy dem. maanaam costume africain la sol te ñun fii su sunu président yi. waaw baaxoon nañ bu ñu nekkee bisu tabaski ñu ñu sol yëre wolof. waaw man de tey moom baaxoon nañ bu ñu seetee sarax ñu sol yëre wolof waaye bu ñu demee Macron des ci moom costume bu gën a seer la ñuy waaw dajeeg euh, kee des tuuti tuuti Joe Joe Biden costume bu gën a seer la ñuy wékki. sol benn costume ah, africain moom laa ci njëkk a mooy kon moom mi ngi préservé moom en tant que euh, et cetera loolu nag am na benn réussite man bu ma ci gis. total en tant que di d'accord ak Macron sol nañ ko sol waaye li ñu gën a neex nag mooy ñoom ñaari bi ñu nuyoo xool xar Macron xool xar kanamu Bassirou Diomaye Faye xool seen ñaari jëmm hmm. mooy Diomaye boo ko nee jàkk di ko xool malgré lu sax am na solo ci man mooy mooy karawam nga ma nga ne sol sikki moom ma nga ko bàyyi mu ne lay te ñoom loolu dañ koy bañ ñoom France bu fekkee xam nga leen <laughs> bokk ci mandarga gi xaaral ma agale dëgg la barbe yi. daa bokk ci maanaam dañuy tuumaale nit maanaam mooy nit ki dafay rab sikkim di taxaw sikkim da rawatu ko ci mi ngi taxaw. en tant que uh-huh. africain originaire africain. Uh-huh. beneen bi ci dolli kit mooy man Macron bi ko Diomaye Faye joxe loxo boo seet lool. Uh-huh. Diomaye fii li a bari ñu daan jox loxo bu la masaa jox loxo en tant que président day jël loxool càmmoñ tegaat ko ci samba wane na daal tax si man wey jëlaat la gum. màggal naa naa la kawel a Macron de moo teg ñaari loxo yi moom benn bi la teg rek jël beneen bi. góos bi waaw Macron moo taawab loxo ba loxo bi la président. ci li ma gis si photo bi man. te moo ko taaw aussi mu jëlaat loxoom tegaat ci kawam. Mhm. tubaab bi daaw noonu su su suñu chef de taille. parce que nit moo doon nit jëmmi nit ah. man mhm. dama koy wax di ko faral di wax. jëmmi nit ku mën a doon même li ngay nit lu mën a nekk bu ko personnalisé rek moom personnalisé mbir mu ne mi ngi dépendre ci nit ki ni mu ko ni ko téye rek. wuute nu la gis sax lay ëwalee. ah voilà wuute la gis noonu lay ëwalee. Hmm. kon euh, visite bi da ngay wax ne. d'accord. Euh, li ma li ma ci gis rek euh, ci tënk ci gàttal loolu la mu doon loo xam ne rafetlu naa ko sama xol sedd na ci hmm. ndax li tax sama xol sedd ci mooy gumba woon ne man ci sama dund yàlla man damaa may ma dund ba fekkee nit ñu yor Sénégal ñoo xam ne ñu gëm Sénégal la ñuy doon ñu gëm seen bopp la xam ne buñ jàkkaarloo tubaab bi duñ jaras duñ wàcce duñ suufeel suñ bopp seen bopp duñ toroxa seen bopp duñ jàpp ne seen i patron gis hmm. duñ jàpp ne seen i kilifa lañ gis duñ jàpp ne seen supérieur lañ gis hmm. loolu moom vraiment sant naa ci yàlla mi nga xam ne dundul woon naa ba ma fekk lu mel noonu waaw <laughs> jaajëf kon analyse bi boo ñëwee faaw ma ñëw Touba jël si la nag ñu ñëw Ndakaaru def émission nag ah ok <laughs> waaw rek. waaw incha allah boo man soo am allah incha allah mais kontaan naa ci ci ci analyse bi am na solo. Ah, kontaan naa jërëjëf kon ci kanam incha allah su neexee borom bi. mu ngi ah, noonu Serigne Modou Astou Mbacké la donc doon àddu ci suñu euh, suñu suñu suñu émission donc merci beaucoup ah ci intervention bi am na solo dafa mel ni na keneen ku nekk ci ligne bi jërëjëf salaamaaleykum salaamaaleykum. salaamaaleykum sëñ Jibi waaw ku baax.